impression bu dul rek àndandoo ak moom jàppale ko taxawu ko xam na nañu aussi jikkoom parce que am na koo xamante ni ku mu yar mënuloo mënuloo mel nenn ñu nekk model ci àdduna te ñi ko yar loolu lañ ko yaree bon lii nag lu yàlla dogal la mu si bon dañu koy nangu ànd ci ak dal ànd ci aussi ak sago bàyyi lépp ci loxo yàlla ak justice bi lu nu ci def rek nu ànd ci ak ñoom waaye ndax xam na ni ñi ko yar eh, eh, yarunu ko ci mu nekk nit koo xamante ni kii ku vulgaire la wala leen parce que am xamante ni ku bokk wane na boppam ba noppi te mooy mouvement bi mu bokk bien avant muy nekk militant dafa nekk njaboot te njaboot bi nekk ki ko yar am na ndigal ci yar te yar na ko yar boo xamante ni bi fa tabarakallah macha allah amuñu lenn luy ñuy nim ci leen kon nag noo ngi ñaan yàlla yàlla woyofal ko yàlla indi jàmm ci réew mi ñëpp bokk jàmm ci loolu rek lañ ci ñaan yàlla mais amuñu ci benn xalaat benn xalaat nag boo xamante ni diis na ci noonu parce que lu mu ci mën doon rek na nañu ci waaw ci kàttanu yàlla ak mbaax yonent bi loolu moo tax rek amuñu ci benn problème. xanaa kon mën nañu wax léegi njabootam daal dañuy serein. waaw sérénité lañu àndal pure waaw sérénité parce que am na yar bu jiitu ci ñoom boo xamante ne am na leen mënta démoraliser. comme am na lu leen mënta démoraliser nag sérénité lañ ci àndal ñëw di ko assister ak di ànd ak moom di ko jox coup de rek ak di déglu incha allahu taala lu ci am rek nu nu ko dogal rek ànd ànd nañ ci. ci kàttan ak mbaax yéen. jërëjëf jërëjëf tur bi naka la. tur bi maam Seeni Mbay